poste de santé bi daayira Touba ci kanam doon tabax ci quartier Touba Lansar bi nekk ci Touba Mbacké noppi na ñu def ci lu toll ci million cent millions 746 mille francs yu tekk liggéey boo xam ne nag mboolem taalibé muridin ñoo ko financé ci seen addiye ji nga xam ne ñu ngi koy joxe ci daayira Touba ca kanam poste de santé bi tamit daañu fi def équipement boo xam ne daañu ko xayma lu toll ci ñaar téeméeri million ci franc CFA. foofu ci la Touba kanam teg tànkam ba fas yéene lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu war a am ci dëkk bi la ñun ñu fas yéenee doon ñi nga xam ne dañuy gëm ne ñun ñoo ko war a amal am na dosement ICP am na logement euh, euh, sage-femme aussi ambulance benn ngi nii ci seen kanam boobu tamit bokk na ci tutee nag leneen beneen équipement bu poste bi soxla dinañ ko def ndax dañoo bëgg mu nekk poste moderne waaye nekk modèle type Cheikh Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ànd ak Serigne Abibou Mbacké moom Cheikh Mamour Fadal ak mboolem kilifa yi ñu visité poste de santé bi bépp bërëb sëñ bi dugg fa daal di fay ñaan ba ci fi nga xam ne moom moo di jàkka ji nekk ci biir sëriñ bi julli fa ay ràkka ginnaaw bu Cheikh Mountakha visité mboolem bâtiment yi ci la ñëw ki nga xam ne moom moo di ab Serigne bu Mbacke moom Cheikh Amoon Fadal ci kàddu yi nga xam ne dénkoon na ko Serigne Fallou Galass la mu leeral Serigne bi liggéey bi. daal tabax rek leen ci waroon bu noppee ñu teg sa liggéey bi nag dafa am ñu mu ko seqaloon ak lu ci am lu mu la bëgg a leeral tuuti rek ndax nee na nit ñi boo nee seen kanam di leen laaj seen alal war nga leen di wan fa nga leen koy defal. su noppee it nga leeral leen la nga leen joxoon lañ la joxoon nam toll ak la nga ca def fu mu toll. nee na diggante ba ñu tàmbalee maasale suuf si ba ni ñu ko pentiree ba noppi ci lépp nee na toll na ci téeméeri million ak fanweeri million ak juróom yu tegal téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak juróom-ñeenti junni ak ñaar téeméer yu tegal ñeent fukki juróom fukki dërëm ak ñeent muy cent trente cinq millions sept cent quarante cinq mille deux cent soixante dix sept waaye nee na ci biir xaalis boobu itam mbooleem këyit um ci masa jaarale nga xam ne facture la nee na day ñëw jébbalaat la ko ndax yow lañ ko doon liggéeyal facture yëpp a ngi nii bu dee mbuusum ndox lañ ci jënd sax bind nañ ko ci facture suñu sedd na. nee na kon xolam sedd na. xelam dal na. di wéy di wéy yaakaar. suñu yaakaar rëy na mat na sëkk. ci taxawaay bi. askan wi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier Touba Lansar ñoom bëgg nañ lool ci poste de santé bi nga xam ne moom lañ leen fi taxawal. poste de santé bi ñuy ñu ngi ciy sant Serigne Touba baax a baax a baax ndax Touba Lansar yàgg nañoo bëgg ab poste de santé. am na ñetti poste de santé yoo xamante ni daayira Touba ca kanam ñu ngi koy liggéey ci bërëbu seele bi di Touba ñoom it léegi mu noppi ñu jébbal ko xalifa général des Mourides ndax daayira tubaa ca kanam seen bëgg-bëgg mbooy lépp loo xam ne Touba yi teewoo na ko ci infrastructure ñu mën koy financer seen bopp